temps yi am ba nit ñi di màggal bàmmeelam di ko ziar Bagdad ba tey jàppee ko bàmmaalu bàmmeelu wala yi gën a màgg ci bàmmeel yi gën a rëy ci àdduna borom xam-xam yu bari nettali leen loolu Cheikh la Islam Taymiya nettali na ko ñeneen ñu doon Ibnu Taymiya nettali ko mooy bàmmeelam boobu am na jamono Iblis dugg fa nekk ci biir bàmmeel bi képp koo xam ni dangay ñëw di wër bàmmeel bi wala nga woo Cheikh pour Cheikh Abdul Qadir seetaane yi ci biir daal di lay wuyu daal di lay wuyu nga jàpp ne su ko defee nga wax sa soxla ñu ne dinañ la ko fajal loola taxoon nit ñi dof ca riir di wuti li nga xam ni moom mooy bàmmeel ba. fii moom daanaka dana bëgg ñu ree ko rek. ak lu ñuy tontu léegi ñaari biir moo mën a am Ibnu Taymiya moo ko wax wala waxu ko léegi naa ko tag teggil pour mën a wax ak Omar rek pour ñu mën a wax ak li nga wax da ngay fen mënta ndax bu kenn nekkee ci bàmmeel ñu ne ki dee ci bàmmeel seetaane la. mooy wax ak yow léegi kooku dalil rek moo ko war a saxal te Omar moom gëm na loolu li mu téemee wax nii gëm na ni loolu mooy la am léegi ci ban dalil ngay jaar pour gëm ko ban dalil te Ibnu Taymiya bi Ibnu Taymiya fekkewu ko moom judduwul six cent soixante et un la gën a àdduna su ma jumut waaw kooku moom xabru imaam kii lu mu ci xam ki nga xam ne yow wax nga ne faat na cinq cent soixante et un cinq soixante et ak six cent soixante et bi kii di faatu ak bi kii di judd xarn kaamil la léegi lu mu ci mën a wax moom lu nit ñi mën a jàpp lu mu ci mën a wax lu nit ñi mën a jàpp xaw ma ko léegi nag lan mooy dalilu <laughs> seytaane wax foofu te est-ce que bi wér na est ce que im tamit mën nañ indi benn dalil muy wane ne xisa boobu lu wér la fu fu mu ko jëlee moom fu mu jëlee loolu lu tax nga gëm ko yow Omar lu tax nga gëm ne ibnu taymiya li mu wax dëgg la ci ban dalil amul fenn foo mën a jaar pour gëm ko fenn ibnu taymiya nee na xabru imam eh, Abdul Qadir Jelaani dafa am ñu fa daan ñëw suñu waxee seytaane mooy dugg ci biir di leen xaar bu ñu waxee mu mu mu tontu leen ne leen dinañ leen fañ a seet si nga daat koy gëm nii rek gëm nii rek nii rek nii ci ci ci dakk ci ban dalil bu koy buy wan ne moom li mu wax dëgg la même su fekkoon ne dañ ko ko nettali moom une téeméer fent ko su fekkoon dañ ko ko nettali mais lan mooy wan moom ki ko nett wax ko de nekk ka ko nekk ka ko nekk ba mu dem ba ñuy jàkkaarloo xabru bi nii am koy wax ci biir kan moo mën a wax ne seytaane nekk ci biir yonent bi kese moo mën a ne diw seytaane nekk di wax waaye kay xanaa ñi fi toog ni mun ni ñuy xamee ne ki kii wax di dinañ la fajal sa mbir kon daal gars nañ tuuti te ko dem bàyyi fi ñoom ibnu taymiya ak omar ñu waxtaan ci affaire bi wut dalil